salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp ci seen site info 15 point com fii nag mooy bërëb bi nga xamante ni moo indi woon coow jamono yi lay weesu ci diwaanu Kër Massar muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee quartier Nimzat ak ki nga xamante ni moom mooy maire Kër Massar di Moustapha Mbeng ñi dëkkee côté Nimzat dañuy wax ni bërëb bii nii duñu nangu mukk ñu defaral leen ko li nga xamante ni moom mooy marché Moustapha Mbeng nag waxoon ni fii nii moom lañ xalaat rambale ko pour mën ko def li nga xamante ni moom mooy marché waaye nag ginnaaw gi ci diggante bi borom bi daal di ñëw ak taw bi mu ñëwee ak tawam nag ñu daal di gis bërëb bi nii la mel ñu déglu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dëkk ñu dëgtal ñu ni nga xamante ni noonu la mel. voilà site bii la mairie Kër Massar di remblai pour ne def fi transférer marché Nimzat sant yàlla ne promoteur bi dañ ko war a fay cent vingt millions. Nous war morcelé, morceler ay parcelles pour fay ko parce que mairie bi amul xaalis taw démb déjà gis nga ndox mi commencé na envahir zone bi suñ ko rambalé na kër yi nek fi yépp ndox mi foofu lay dem déversé wu donc système canalisation bi ñuy def Kër Massar yépp des années après problème bi transféré wu fi encore mu nekkati l'éternel recommencement voilà donc fi, defe canalisation moko meuna mën a mais pas ay remblage donc bas fond la dafa communiquer ak ben bassin bu nek ci apex bi feulé ndox mi day déverser di ñëw donc fi genre zone de captage la quoi donc mu ngi ni waaw tas de sable yi ñu sotti woon ndox mi commencé naka envahir commencé ko borne yooyu nga xamante ni nag moom ngeen gis moom la ñu wax ni bu ñu maasalee kii bi ba pare bu ñu ko ràmbalee ba pare moom la ñuy jël pour mën ci génnee li nga xamante ni moom mooy parcelle yi borne yi ñoom ñoo nekkee noonu waaye nag taw bi nag mooy li nga xamante ni moom mooy changer xalaat yëpp. voilà borne yi lañ def donc ku ñëw ne da ngay ràmbale sociaux déjà commencé nañu indi seen born wane na donc lotissement loti lotissé la ñuy def dañ bëgg a encore bi. ñu ñëw ñu tey lañ ñëw indi fii commencé indi seeni borm voilà donc mu ngi nii yëpp ay preuve voilà donc ñi xam nga ne defaruñ pour remblayer yem ci mais dañ bëgg daggaat site bi encore pour ay ay ay lotissement ay terrain lii yéen a ko gisandoo lii mooy coow li nga xamante ni moom moo fi amoon semaine yi la weesu mu dox ci diggante ñi féetee quartier Nimzatt ak ñi féete ci waa mairie bi waaye nag yaakaar naa borom bi ñëw na ak ay kéemtaanam ñëw na ak ay mbiram mu mel ni nag kon ñiy xaaraat ba xam ñi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci mairie bi lan la ñuy proposé waat ak ñi dëkkee tamit côté Nimzaat ñoom it lan la ñuy nangu pour waxtaanee ko ba mën ci déggoo lii mooy li leen doon dëgtal ci seen site info 15 point com.